saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa combat ba sunu papa Gaston décroché muy diggante Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux le lion de Guédiawaye ak le troisième tigre de sunu papa Gaston ficelé na ko bile combat ñi ko doon jort di ko laam-laamee di ko ruuma naan yépp nañu jàpp ne combat ba taxaw na ku ci nekk jot nga avance Balla Gaye 2 jot na avance staffam confirmé nañ li ni mel waa Fass nangu nañu juboo nañu ak père Gaston bile combat léegi am date Niang 2 boo yeboo bàyyil ba beneen yoon mbooleem ku bëggoon a seetaan combat bu neex ci diggante Balla Gaye 2 ak Boy Niang 2 tourneel sa xel mi yóbbu ko ci Gris Bordeaux moom Boy Niang la doon king de l'arène ñu gën koo xam ci Gaston fay na ko 55 millions mu bañ ci la ko fa ne ñu xooli waa Fass juboo Gris ci la xam le ne Boy Niang ñàkk maa bëreel ci moom lay metti ñàkk maa bëreel moom moo ciy perte dama gis fi lamb ji toll fi situation lamb a a mooy taxawal naa ñaari combat diggante Bombardier ak Eumeu Sène naa ko yàgg na Gris Bordeaux taxawal naa ko ku nekk jot nga avance ñëwuma ngir tatoni ñëwuma ngir def yi fi dof magum jëmm laa samay tànk naa diggante rëg-rëg ak tafaatin moo ci des waaye boo moytuwul bukki bi matt boo ñaadee dana ko matt man mbër mu ciy seer seerlu dinaa la fi ne ñukk di yàq bu naqari journal ba xam le ne boo daal fan yi mbir maa ngi compliqué ci moom gannaaw ba ñëpp jàppee ne digganteem ak Balla Gaye mooy nekk combat bu neex bi kase moo dox ci diggante ba bile combat nit ñaa ngi koy coow waaye ba léegi taxawul moom boo waxagul dara waaye ba léegi nii Balla Gaye de ko le journal ba xam le mooy même bu ñu bëri bëreewut waaye li ci naqari mooy Boy Niang 2 bu mu war a bëreeg Balla Gaye ka am niveau ngir bëreeg le roi des arènes moom Ama jot naa mos 25 millions ba jàpp ne am na combat waaye adversaire ba mu war a bëreel di le roi des arènes mosul bindul signé sequt ak kenn contrat loolee moo waral journal ba ne Modou bu amoon beneen combat ama dana jombi dana jaaxle ginnaaw moom Modou dara liyeewu ko promoteur bi lu dul ay wax bu beneen promoteur ñëwoon ba tëgg combat ama balde moo ciy perte moom mooy toog di xaar roi des arènes bëri ji doog a dellu ci moom beneen combat ba fi père Gaston doon tudd diggante tafaatin ak rëg-rëg père Mbaye Gueye wax na ca premier tigre de Fass mooy xool ku ko neex mu bëreeg yow waaye li am ba des mooy man le premier tigre de Fass li may xamle mooy combat bi combat bu valide la combat bu nar a neex la mooy le vrai combat bile combat bu ñu fexe ba taxawal ko lamb ji dana dekki dana delluwaat fa mu nekkoon jërë ngeen jëf mbokk li moo nekkoon li gën a fës ci etu yéene gaay bi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha allah